fu ñuy jeexalee rek mooy ñu bëri ñu ngi naan TFM nag daa ma xaw a sa code buzz parce que oustaz Modou Fall dañ ko xamoon muy def vidéo gars yi di partagé. yow hmm. da amoon sa télévision boobu da ngay def sa vidéo daal gars yi jël partagé mais TFM léegi dañ lay duggal ci ay émission yoo xam ne ay werante la wala ñu invité la ay émission yoo xam ne ay werante la ñu oustaz Modou Fall daal xaw na xaw na kii nag <laughs> bàyyi vidéo dem dem dem si kii lu tax loolu déjà. mais Euh, wax yooyu tamit yaa ngi ko doon waaw xam nga ñu ci bari ñu ngi naan ma waaw video yi nga daan def continuer ko chaque jeudi wala chaque vendredi nga def benn vidéo cinq minutes ñu partagé ko mais xam nga nit ku nekk tam xamoo sa àdduna ni muy doxee yàlla moo lay kondiiral boppam bu ñu nekkee ci benn affaire tey ba benn télé gis ñu bëgguñu ne ñu kat li ngay def neex na ma bu nu sañoon danañ la jox nangam ak nangam ak nangam nga ñu koy defal. ah mënoo lu dul def ko parce que tam xëy na vidéo yi yaa ngi ko doon def di ci am yàlla di ci am yonent bi mais daawoo ci am xaalis de léegi nag bu ñu la woowee foo xam ne moom boo paree boo liggéeyee ba pare ñu ne la lii nga fi am nga jënd essence li ci des nga dund ci ba tam ba tey da ngay xam ni gën naa xéewale rek mais teewul ba tey yenn saa yi ñu def live waxtaan suñu Facebook yenn saa yi itam ñu def ay interview ku mel ni Sénégal wala yeneen sites yi loolu rek tax mais ba tey la ñu daan def bàyyiwunu ko ndax dara mënta tax ñu bàyyi ko loolu moo ci nekk. waaw actualité itam ñu ngi ciy wax de temps en temps bu si bu dara xewee site internet yi. président Macky Sall nag Aïda président Macky Sall nag Aïda man mooy sama président euh, président Macky Sall ñu ngi koy ñaanal gudd fan. ñu koy ñaanal wér mook Adja Marème Faye Sall barki démb dafa am ko woote woon ci benn émission bu ñu ma invité woon naan oustaz yi di dem ci président ma ne ko ndeysaan dañ ko woowagul rek xam naa ne duñ ko mas a woo te woote la bëgg président bu ñu woowee suba bu ñu woowoon dix heure six heures buntu këram la ñuy fekk bu ñu woowee dix neuf heures këram la ñuy jullee tàkkusaan su ma woowaatoon tey ma dem nit ñi nañu dalal seen xel ci loolu man Macky Sall mooy sama président moom laa faral aw ma kenn xar ma yàlla du opposition bi kenn mais sama xol bi président ci nekk moo ma defal lu ma kenn defalul ma teg ko fu ma tegul kenn jàppee ko nu ma jàppeewul kenn. ah lu ma mais <laughs> li ma defal kay bari na ay ah, mais xam nga euh, cat cat gi daa bari léegi ci jamono bi cat ah, gi ah, <laughs> damay bañ ñu catu <laughs> mais daal xam naa ne daal Macky Sall moom ayda da hmm. na ko yàlla may gudd fan léegi su ma waxtaan yëpp loolu laa koy tëjee Macky Sall yàlla ko yàlla may gudd fan euh, Adja fay sàll Sall yàlla na ko yàlla may gudd fan euh, Moustapha Diop maire Louga hmm. xam nga ko yàlla na ko yàlla may gudd fan Abdou Aziz Ala Ndiaye xam nga ko <laughs> xam nga man sama nit ñi ñëpp leen xam. man sama nit ñi man. Uh-huh. Euh, dama leen di sagoo. Uh-huh. comme niñ may sagoowee man. man samay nit dama man samay nit man sama nit dama ko man damaa mën sama nit dama lay téye. bañu ma ci xas. Uh-huh. bañu ma lu ne la ñuy wax samay nit jàpp rek Abdou Aziz sama nit la xam nga ko. xam nga sama digganteeg moom. ñii ma la limal ñëpp samay xarit lañ samay nit lañu. maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla may leen gudd fan yàlla may leen wér ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. <laughs> waxtaan bi neexoon na bëggoon nañ ko guddal waaye amoo jot comme mu ko waxee woon ci début bi ma bàyyi la nga nuyoo ak message bi ngay lancé sénégalais yi nag. jërëjëf Aïda maa ngi bég lool di ñaanal waa Sénégal nag ndax Sénégal moom ñoo dalal baax ci Sénégal mhm. bi ma ñibbisee jóge Italie euh, ñoom laa doon. njëkk a defal sama première interview wax dëgg yàlla gàmm tiwaawoon nit man ak ñoom. kóllëre googu moom dañ koo séq gàmm tiwaawoon bu jot. <laughs> ngoon gi damay ñëw séq ak ñoom ay waxtaan. loolu nag dara du ko dindi. Mhm. incha allahu rabbi ndax yéen ci samay nit ngeen bokk. Mhm. yal na yàlla taxawu leen yal yàlla def ci réew mi jàmm. yàlla def fi sutura def fi xéewal. ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi amagul borom kër yal na leen ko yàlla may. ñi amagul soxna yal na leen ko yàlla may. corona bi yàlla na ko fi yàlla jëlee yàlla na yàlla dimbali suñu kilifa diine yi may leen gudd fan sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla na ko yàlla sàmm sëriñ Mountakha yàlla na ko yàlla sàmm yeneen kilifa yi fi nekk yëpp yàlla may leen wér ak gudd fan ba li nuy liggéeyal diine ji ak tarixa bi yàlla mottalil leen ko maa ngi bëgg lool di ñaanal ñëpp peut-être message bi nga wax ci féticheurs yi nga xam ne dañuy mujjee après sacrifice yeeg dem temps yi gis nañ fi soxna suñu rey ci loolu. mais Aïda moytu rek xam nga bu ñu demee ba toll ba nekk ci réew moo xam ne nit ñi. dafa Sénégal dafa bëri waaw nit ñi am alal wala am pouvoir da leen a jaral lu nekk. sacrifice yi fii euh, rey nit ñi fii cat yu bari yi kortu yi Sénégal dafa metti de. senegal réew mu doy waar la réew la moo xam ne réewu ñaan la ak muslu foo toll rek di ñaan tey muslu tey nëbbutu. parce que nit bu fekkee lépp loo bëgg a def ñëpp xam ko wolof nee na ku ñëpp xam foo jëm doo yegg Sénégal ngay gis kuy togg añ añ bi pareegul mu dugal ko ci sinabam bi ne tey journée maafe la maa ngi nii ci waañ bi def sama jongoma def sama maafe waa kër gi lekk guñ ko bët yëpp xool ko cat yooyu dafa am te nit ñi duñ ci bàyyi xel ko defee loolu lépp ñu di ko moytu kuy def lu bon nga xalaat yàlla xalaat sa bàmmeel xalaat ni bis dana ñëw nga wéet ak yàlla ba foog ni yow rek la bindoon loolu war naa tax ku ci nekk bàyyi xel yàlla yéen ñu nuy weexal xaalis tem pour def lu bon ngeen bàyyi xel yàlla xam ne da ngeen dajeeg moom àdduna boo fi nekkee pouvoiru àdduna bi yàggul kenn yàggu fi bul liggéey nit bul def nit lu bon bul def nit lu soxor bul attaqué nit bul def dara lu ci nekk rek bàyyi ko ci loxo yàlla kon nag kàddu yooyu laa doon dénkaane mhm. yàlla ñu yàlla may wér yàlla ñu yàlla may gudd fan yàlla à la prochaine fois. Inch'Allah. Merci.